asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. mbokk yi ginnaaw bu nu sante yàlla julli ci yonantam bu tedd bi ñoo ngi leen di nuyu te di leen siyaar di leen baalu ak tey baal ak ñëpp di ñaan yàlla di defal jàmm fu mën a nekk. dellu si seen jataay bi ñuy wax taxaw seetlu ñu di ko amal seen site bi ñuy wax yi TV Seydina moo nekk ci xarale gi ñu ngi nuyu Baye Modou Dieng Touba 28 minam deg ko mbokk yi tey taxaw seetlu bi mi ngi jëm ci Bassirou Diomaye Diakhar fay mi nga xam ne mooy président tout le sénégalais ak ki nga xam ne moo di Ousmane songo di premier ministre bi nga xam ne moo jiite gouvernement bi li tax taxaw seetlu bi jëm ci ñoom nag ñoom dafa am lu nu digoon ne dañoo bëgg a changer réew mi Ousmane songo wax ne 2024 suñ leen joxee Sénégal danañ ko changer lii nag doon benn bataaxel boo xamante ni kenn mënta defar am réew te bàyyiwoo ko xel wala xeexoo ko ma bëgg a jël bataaxal bi ànd koog mboolem ñi nga xam ne réewum Sénégal ñor na leen te nu xam dara ci am réew ni muy doxe te nu xami tamit réew nan la société ba di baaxee ak lan mooy tax société ba suqaliku euh, loolu jàpp naa ne bataaxal bu am solo lay doon bataaxal bi ñu defar réew mi jàpp naa ne am na ay conditions yu bari yu war a mën a daje ngir réew mi mën a baax dafa am benn boroom xam-xam boo xamante ni dafa waxoon ne man de am réew ni may xamee ne réew mu do développé la ci ñetti anam dinaa ko ci xamee su ma demee ci réew ma ñu ne ko ah ñetti anam yooyu yan la mu ne su ma demee fekk xale yu ndaw ndawaan yi nekk ci mbedd yi di taxawaalu damay xam ne réew mi développement amu fi ñu ne ko ban moo ko ñaareel mu ne beneen bi ko ñaareel su ma demee gis ñi nga xam ne dañuy wane ne seeni xel dafa manqué ay nit ñuy taxawaalu ci mbedd mi te seeni xel muy ay mag wala ay góor ak jigéen di taxawaalu damay xam ne réew mii amul développement ñu ne ko ban moo ko ñeenteel ñetteel mu ne su ma gisee seen fiiri courant di jaar ci kaw di lang poto yi di daa di daar yii di fiil yi di kii boo yooyu su ma gisee ñu am cim réew damay xam ne réew mi développé wut su fekkee développement am na nii tamit ci matière maanaam ci mentalité moom réew mi développé wut te am réew du ay matière rek wala ay yooyu la mooy développement réew mi tey nag ma bëgg a wax ci kàddu yi nag ne wax ne président songo Sonko ba Bassirou Diomaye ak mboolem tous les sénégalais nanu yëg ne am réew mënta defaru te yii bari ci réew ma bu yii baree ci réew ma mënta mënta réew mi mënagut a gut defaru bëgg naa ngeen jóg li ñuy wax xeex dëgg-dëgg ci lii leen ko war a def mooy xeex dorog bi dorog bu bari bii di dugg ci réew mi te dorog bi mënoo seetaan tele wala journal te gisoo ay sàndarma wala ay pëlis wala ay duwaañ ñu ne la jàng na jàpp jàpp na nangami toni euh, dorog wala nangami torop toni yàmba wala loo xamante ni day yàq am xel yii bu baree cim réew am réew mënul baax te réew mi dëgg dëgg li bari na fi li ciy dugg lañ lay wax ne la ci milliard sax nangami milliard la doon ci xaalis dangay ngay mujj dar sa gémmañ xeex ko ba xam ñi ko fiy dugal ñu teg ci ay sanctions yu méttee métti euh, ku ñuy wax Moustapha Cissé ñun ñëpp ñoo ko déggandoo seetaan ko ci télévision mu ne su ma leen waxoon ministère yi seen xaalis yi étage yi ngeen di gis fi mu jóge ci dorog yàmbaak ay bion ci la jóge te nan ma woo booba dafa waxu daf caa boole sax ne ma na ma nan ma woo laaj ma kenn woo ko daf naa buñ ko woowoon laaj ko moom ñakkul dina mën a am lu mën a xam ca loola fa muy jóge waaye kenn woo ko ba jonni tey lu mel noonu am réew nit mën koo wax cim réew taxawu te kenn woowu ko lool lu ko gën a garaaw amul waa ji ñu tëj nii tan koy wax xawma nit dof ndey la xawma ak dix mille problème seetaan naa leen fii ci télévision Walfadjri mu ne man ki ma doon jox pistolet ak di ma jox kii tudd ca Aliou Nguy Ndiaye tudd ca Moustapha Cissé loolu ne ñoo ma doon jox ay xaalis may recruter recruter ay nervi ay xale yi nangam di leen fay ay dix mille ay sept mille ay nangam loolu wax na ko fii ci télé ñëpp di ko dégg kenn wowul ñooñu kenn kiiw moom dafa wax sax ne boo tàppee YouTube di nga gis ma sol xawma ma lan nekk ci wetu Aliou Nguy Ndiaye loola dof nit dof xaw ma dof kii mi wax na ko fi wax na ko fi. yu mel nii nag bu fekkee am réew mën nañ koo wax ñu mën koo nax saale kenn amu ci loo ci contrôler amul dara koo xamante ni la muy def lépp luy yàq réew mi la luy delloo réew mi ginnaaw di rey ay nit di jël ay ay politiciens fay leen ñuy jël ay nervi jël ay fital jël ay nangam wax dëgg yàlla lii day kenn xamul lu mu lii nag dañoo bëgg <clears throat> président Diomaye ak Ousmane songo ñu tiire ci attention te mu doon seen xeex ndax am réew mënoo koo defar mukk te jikko yi baaxul. gis nga boo nee da ngay defar am réew te jikko yu baaxul mënul nekk dafa mënul nekk sax dafa mel ni yaa ngi toog di ñaan yàlla lu jomb loo xam ne dafa jomb lu mënta am lu jomb mooy lan mooy nga bëgg a ñaan yàlla ne ko delloo silma démb tey mu nekk tey loolu ku nekk xam na ne lu jomb la mënul nekk waaw mënul nekk léegi nag ñoom ñii nee na dañuy defar réew mi mënoo defar am réew desal ginnaaw yii ay jikko yu bon la yu mën a yàq am réew yii ñu ne la yàmbaa bi nangam lay dugg lay dugg Euh, pion yi nangam lay dugg ñii carte PME bi ñi nga xam ne dañuy carte ba léegi ñu ngi wax naar bi yii mënut am ci réew réew mi mën a développer mën a baax ay jikko ñooy baax am réew baax lay baaxal jikko nag loola mooy bari cim réew lay bonal jikko bu baree cim réew réew ma day bon dorog bu toll nii ñu ne la mooy dugg fii dorog lan lay def ci nit ak sàngara sàngara sax moom bàyyi nañ ko mu dugg ci réew mi mais nag dugg gi mu dugg ci réew mi bu dee ci lislaam lislaam du aayee noonu lislaam moom day seet lii lan lay def day yàq xel wala du ko yàq bu ne day yàq xel day yàq jikko lislaam aaye la ko sàngara moom mën nañ koo bàyyi ñi ngi ko bàyyi mu dugg waaye man jàpp naa ne war nañ ciy jul benn solution buñ koy jaay bu demee ba sàngara boo ko bëggee boo amee cent franc am ko boo amee deux cent am ko ñu la koy jaay ci bunti école yi di ko jaay ci nangam loolu c'est pas normal loolu c'est pas loolu mënoo defar am réew xale yu ndaw yépp ci yooyu leen jàng naan sàngara bi ñu jógee ci sàngara di tox yàmba bi ñu jógee ci yàmba di def dorog lii lu muy indi mooy kar ay nit di leen rey di leen rey ñaata nit ngay dégg ñu ne rey nañ ko boo demoon ca kaso ba tey nan dem ci kaso bi boo demoon di xool ña fay jaay dorog yóbbu ña fa jaay yàmbaa yóbbu ña fa jaay tox yàmbaa yóbbu boo leen beroon daanaka ñooy ñu ëpp ca kaso ba ñooñu seeni jikko yàqu na te benn sanction boo xamante ni am na te jaaykatu yàmbaay yeeg drogue yéeg ñooñu ñooñu moom kaso moom dañ koo def comme seen kër boo leen jàppoon yóbbu leen fa amulu problème ñoom bu nu génnee di delluwaat ci seen métier ndax danoo gisul métier mu gën a dox mii métier mu ko gën a dox amuñu ko te xam nañ fi ñuy jaar ak ñi ni kii lii nag dëgg dëgg ñëpp a ci war a farlu ay yenn saa yi ñu ne la lakk na nangam jàpp na nangam ak yooyu yooyu sëñ bi jàpp naa ne yu jar a bàyyi xel la. <laughs> da ngay gis léegi ñii ko fiy def réew mi boo doon xool tey sama dégg benn waaye ne xaw ma sàngara li fii dugg ci xawma ñaata biteel la wax le mooy dugg fii ci ci ci sàngara nangamit junni biteel wala tàngam la wax Sénégal fii ñu toll àggunu ci quatre-vingt-dix-huit musulman kon ñi koy ñi naan sàngara si kon ku nekk xam na ne daanaka ñoom ñëpp mën na noo wax ne ñi koy naan ñi ci ëpp ñëpp kon ay jullit lañ yii ñuy jàpp tamit ñu ne yenn saa yi ñu jàpp buñ ci jàppee nangam te ñi koy def gis nga pexe yin ciy def ak lim leen jaral dem ab oto nga dajji ko liggéeylu ci pono yi fi sambriage bi dugg nga dugal fa ay drogue ubbi te fi nga xam ne mooy fi ron pono yi ron fi coussin bi ron nangam ci biir moteur bi fu nekk la suude suudeelu waale drogue yi di ko def buñ ko jàppee sax dangay wax ne lii lan moo ko jar lu ko jar mooy wut alalu àdduna mooy wut xaalis ñii nag jàpp naa ne mënoo leen ne da ngeen di defar réew mi li ngeen bàyyi ko yenn saa yi nga gis ñi koy naan ñan la ak ñi koy tox ak ñi koy utiliser mooy ñu yor big di signé ndax nit ki mën naa naan ba màndi wala mu dem ba tàggoo sagoom xelam nekkatu mu jël big ni day signé lu normal déedéet mënta nekk ndax waa ji mën naa drogué wu ba xamut fan lay taxaw mu ne day taxaw day yor oto bii di ko dawal oto boo xam benn day ay client la yëpp wala oto boo xam moom ci boppam sax. moo moom oto moo moom lépp yenn saa nga gis benn oto daw ba saaraan danga ne lii ko fayoon nit ne ko oto bi dugalal ma ko fii ma jox la nangami million du ko fi war a mën a dugal da ngay xam ne kii oto bi bi muy dugg fii kii àndut ak sagoom kooka ndax moom dong lay rey boppam lay lor yenn saa yi mu saaraan jaar ci ay nit ñoo xam ne dañoo toogoon di jaay wala ñu toogoon seen kër wala nangam oto ba saaraan di dugg ba rey nangami personne ñu ne benn oto boo xamante ni dafa saaraan ki ko doon dawal téye nañ ko dafa tàggoo woon ak sagoom nangam mu ñaata bakkan la rey moom ñu téye ko bu fekkee yàlla def na ko am saan bu du ko am saan mën naa deeyaaleeg oto ba yoonam xam nga kooku bañul dee ki nga xam ne dafa naan ba xamut fan lay yar xamut guddi xàmmetul bëccëg kooku xàmmee bañul dee mais ki nga xam ne moom dafa bëgg bañ ragal dee di ko daw toog ca këram. wala mu toog ca wetu nangam wala mu toog ca bitigam wala mu nangam wala mu yor otoom di dawal yow nga nekk ci circulation bi nga jikk-jikk rek kar otoom duur ko mu daanu ji famille ab famille dee wala ay ay personne dee <coughs> yii jàpp naa ne jar na ñu lijjanti ko euh, kun ci jàpp ñu xool gis nga euh, yu mel nii billaahi wallaahi ak waat ci màggu yàlla bu baree cim réew buñ ko fi interdire kenn mënta defar réew mi moo tax yii ñoom nan ci teg ay sanctions yu bari nga gis ñoo xamante ñi ko indi ñi ci bari boo xoolee bu nee fukk la dana laa ñaar ñi ay sénégalais lan waaye juróom ay nangam lan yeneen i lu tax duñ ko def seeni réew réew mii rek moo gën a yomb a dugg ci frontière moo gën a yomb dugg ci di jàpp ay dorog yu bari fexe ba dorog du fi dugg moo gën jàpp na nàngam ak taal na nangam ak yooyu ban njariñ la amal nit ñi jàpp dorog dem taali ko jàpp yàmbaa dem taali ko ban njariñ fexe ba du fi dugg loolu mooy mooy mooy moo gën a doon ndam mais bu fekkee ne ñi ko fiy dugal dañuy fexe ba mu dugg fi mu doon ay xiliya bu noppee li ci gën a yéeme di tudd xaalis bi xaalis boobu ñuy tudd lim bi mën naa tax sax nit ki ne ah man de lii mën naa ko di wut ndeke lii naka ni la waaye noonu war jàpp na nangam rek jàpp nañ jàpp nañ ay nit ñu doon jaay torop waaye xaalis ba sa jarut tudd Ah, parce que li nga koy tudd yaa ngi def promotion nit ki nga xam ne moom xamut woon ci lii dara mu ne ah ndekete lii la am xaalis te cirque bi ñu lay jaarloo dañ lay wax ne la dara du la ci fekk ah, yow sa benn voyage rek loo xamante ni dañ lay wax nga jaay ko ñu ne la nangami milliard la yow sa famille sa mboolem famille nga ay ay ay ñaar fukki famille téeméeri famille mën nga leen a dajale lii mu tiim tey tey ji téeméeri famille mën nu ko am ci alal. kenn nit xëy xëy rek ne am na ko wala ñetti nit xëy xëy rek ne ñoom am na ko dugal nañ ko gis nga bu leen sonn gis nga bu ngeen defaroon senegal fexe ba wàññi dund bépp mu wàññeeku lépp luy dund wàññeeku te dorog bi wàññeeku mënu leen a réussir yàmbaay bi wàññeekuwut mënu leen a réussir fexe leen bu ngeen fexewut ba jikko yi baax bis bu nekk ñu ne diw sàngam rey nañ ko dof ndey moom lu mu ko gis mu koy def paaka di yor di jam nit ba cëgu ndara kamm kooku de xam nga ne ku ànd ak sagoom dëgg la kooku amul lu muy jëfandikoo kooku amul lu nekk nga xool télévision bi di gis benn waaye di saaga kilifa di saaga kooku kooku boo xoolee dëgg-dëgg amul lu muy jëfandikoo nga mën a dem mere nit fay ay nit ñoo xamante ni lii mooy seen liggéey ci lii la nekk ñoom dund ak dee amuñu ci problème nga fay leen ne leen jox leen fital jox leen nangam demal rayal ma nit demal defal ma te ñoo toog ci télévision bi di diw sàngam yi Moussa Cissé mu taxaw ne new nan ma woo étage yi nga xam ne doro kii moo ko tabax kenn xamul nu mu toll <laughs> waaye lu tax ku njooyee duñ ko duñ leen woo man daal li may wax lii moom dama ko waxe sax xol bu xaw a jeex xam ne gis nga mbir yi te lii maanaam fu mu yemoon bu doon diggu tool danga nga naan fu mu yemoon bu déwénee mu paase waat ko ndax ñi ci duggut woon ñii yi ëpp ña ca nekkoon ndax nit ñi dañu jaamuwunu yàlla koo xamante ni ci géej gi fii la nar a jaar di wuti alal kooku boo ko ne ñëwal nga jaar ci lii kooku sëñ bi day day wut de ci lay dem bu ragalut yàlla yarunu ko yarab diine nanu fexe ba yombal ci koy ñiy yar ñu fexe ba yombal leen yaram xam ngeen ne kooku ñu gis muy jàngal ab xale di ko jéng ñu ne kii dafa nàngam kooku boo bàyyi woon xale bi xale bi lan mooy dooni métier mooy dem di ñu koy jox muy jaayi dorog ñu koy jox ay fital muy rey nit ñu koy fekk nit ku yar ay juróom mu kar ko ñu fekk ku takk ab caq orom mu kar ko ñu fekk ku nàngam yii yëpp nag bu nu fexee ba mu dem nanu fexe ba sécurité bi am sécurité mënta am te lii di am ndax ki koy def teyu ko xamut li muy def ànd tut ak sagoom kooku lan nga ko mënal ki ngay woo di yedd mooy koo xamante ni xelem a ngi fi nekk xelam dem jikkoom dem kooku lan nga ko mënal yii nañ ci wax bu nu te bàyyi publication bi ñu koy def jàpp nañ diw di ko def génne ci tele bi jàpp na nangam yooyu day indi ki nañuy jàpp di liggéey di ci dox di fi xepp wàññeeku wala dëgg la bu fekkee kii na dëgg dëgg nii def ba nopp buñ ci jàppee nit it ne dañ koy suturaal xañ na loolu àq nit la ak nangam loolu it lu ko gën a kii amul ñu ngi may nettali ne ma tubaab yi bu masaane jàpp ko def yu garaaw nit lay wër di ci mbedd yi di la wane di la kii yaa ngi jàpp nit muur wala ku nit nga muur kanamam wane ne kii nangam kooko bu jàppaatee kañ la ana ñi waxoon ni ñi fi nekk eh, ay robel lanu ay nangam lan ay nangam waa robel yooyu tey mënut a xëy di ñëw ganesi ma wala keneen nekk man nu ma koy xamee yi daal ay jikko ay kii la yoo xam ne daal maa ngi ciy tiiraloo nit ñi attention bu baax di wax ne lillaahi wa rasul nanu ko bàyyi xel ñoom Ousmane na nanu jéem seen liggéey jëm ci lii jomaay na seen liggéey gën a jëm ci lii lii bu ngeen bëggee ne dangeen defar réew mi te lii bari ci réew mi réew mi du sotti de réew mi du sotti de <laughs> ay jikko mooy ay am réew ay jikko gis nga yan saay sénégalais yi di la wax ne la bu nu jëloon siin indi ko fii jël waa siin yóbbu ko fee ñaari fan ñett jikko yi ñu yàq ko lu koy yàq du caage nag kii waaye jikko yi ñoo bokkul lan la wax jikko yi jikko yi kon nanu defar jikko yi nanu weye ci jikko yi waxtaan ak nit ñi waxtaan wu yiw borom xam-xam yi dugg di di di kii télévision yeeg rajo yi ñu jéem a fexe ba orienté nit ñi débat politique yi ñu wàññi ko wax ci débat économique wax ci débat yi defar jikko débat yi nga xam ne day day day indi ay valeur yooyu faw ñu jéem a def politique boobu mais politique gu xaste politique gu saaga euh, yooyu yooyu gëw ma ne kii la li ma bëgg wax sax du xajut ci émission bi sama xol